<laughs> alors Queen tey nga ñëw ci manifestation F24 bii nii euh, lan mooy motivation bi tax nga wàcc sur le terrain. ah ñëw rek euh, xeexal suñu réew parce que li ñu nekk di gis nii wala li ñu nekk di dund nii c'est un vrai recul démocratique parce que conseil constitutionnel wax nañu dem élection wala wax les candidats ñu ngi nii. le président woote waat euh, ne ne ne dañuy dialogue loolu moo metti sénégalais yi moo ñu metti ñun moo tax ñu ñëw pour xeex xeex suñu droit parce que dëkk amul lu dul euh, lu dul lu dul lu droit nit amul lu dul droit am ñun euh, constitution rek la ñu am te bëgguñu dara lu koy jalgati donc dañuy ñëw pour xeex pour élection am le plus rapidement possible pour avant le 2 ñu am date bi nga xamante ne comme conseil constitutionnel tranché na ñu dem élection ñu sëgg bëre parce que loolu la réew mi laaj loolu mooy suñu garantie loolu mooy gage dëkk bi à euh, Sénégal tey parce que bu ñu bàyyee mu continuer nii te beneen président bu ñëwee bu ko neexee balaa élection yi mu ne newaat damay dialogue te loolu loolu mooy mooy mooy mooy problème bi quoi donc on la là tey pour xeexal suñu réew waaw. Euh, Macky Sall woote na dialogue pour ñu décider date de élection bi ni yow dialogue bi loo ci. bi kenn du ci dem waaw gis ngeen ni tous les candidats yi nga xamante ne presque les 16 ou ñu ne du dem. donc xaw kan lay dialogal quoi bu gars yi demul forum civil demul kon dialogue bi amul sens donc euh, na na président delloo si xelam ñu def élection yi ni mu gën a gaawee ñu tànn suñu président. amee message particulier booy lancé Macky Sall lan lay doon. ah di ko ne président gis nga lii c'est un signal fort tey jeunesse bi tey dañu consciente ñun dootuñu nangu li nga xamante ne suñuy maam sax dalu leen woon mi ñuy dal te adduna bi moo toll foofu. kon nag nañu respecté constitution bi respecté la décision du conseil constitutionnel euh, bàyyi ñu dem élection nu mu gën a gaawee mu dem ci dem bu rafet waaw. merci Thioune. merci jërëjëf.